asalaamaaleykum euh, mbokk internet yi ñuy seetaan tey nag euh, ñoo ko gisandoo ñu ngi fii ci Thiès benn dëkk ñaari gaar mu am ay jàmbaarloo yu métti yi fi am dox ci diggante ñi nga xamante ne moom mooy euh, population bi ak waaye takk der yi comme ni ngeen ko gisee ci image yi baare nañu tali yi taal fi ay pneu ñoo ak police yi sànq ba léegi ñu ngi xeex xeex bu métti ci diggante zone Mbour jàpp li nga xamante ne moom mooy lycée Malick Sy mu nekk nag ay jàmmaarloo yu méttee méttee métti yoo xam ne ñu ngi ko gis fii gis ngeen nii ci image yi policiers yi ni ñu ñëwee di fay li nga xamante ne moom mooy taal bi mais dafa mel ni booy daal kenn mënu leen a contrôler parce que bu police ñëwee rek ba taxaw benn zone bay jéem a sécuriser zone bi rek da gis ñeneen ñoo xam ne dañuy demaat beneen côté taal mu nekk nag euh, mbir mu doy waar mu bette ginnaaw 15 heures la ñu génn rek gis euh, li nga xamante ne moom mooy population Thiès jóg nañu taal dëkk bi yëpp vraiment mu nekk ay jàmmaarloo yu metti euh, ñoom nag li leen metti mooy euh, li nga xamante ne moom mooy euh, déclaration bi nga xamante ne son excellence monsieur le président de la république Macky Sall def na ko di ajandi li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle yi loolu nag moo waral booy mer fipp génn ci mbedd bi taal vraiment depuis sànq booy ñu ngi taal taal bu metti sax di baare tali yi boo xoolee gis nga police bu ñëwee rek pour sécuriser benn zone rek booy dañuy demaat fa sa des taal ko mu nekk nag loo xamante ne métti na loolu ci force de l'ordre yi pour ñu mën a contrôler li nga xamante ne mi ngi am actuellement voilà comme ni ngeen koy gisee nii ci image yi gis ngeen euh, booy ni ñu taalee koñ bi yëpp taal pune yi vraiment mu nekk euh, lu metti lu doy waar loo xamante ne askanu Thiès yeewoo nañ ko tey tey nag moom vraiment mu nekk loo xamante ni dafa bett Cees waa yëpp parce que booy daal dañoo añ ba pare rek génn commencé yëngal si saa si ñu def ay bloc génn fi nga xamante ne moom mooy Mbuuran jàpp rond-point ñëw ba fi nga xamante ne moom mooy euh, lycée Malick si commencé taal maanaam boo xoolee rond bi yëpp dañ ko taal ay pneu baare ko teg fa ay xeer waaw gis nañu sax ci ay image ay taxi yoo xam ne dañ leen a gazé euh, ba clients yi sax daw génn vraiment mu nekk lu metti lu bette te vraiment daal booy daal tey yeewu nañ nakar yeewu nañ nakkar ginnaaw déclaration bi nga xamante ne son excellence président de la république def na ko pour euh, ajandi li nga xamante ne moom mooy euh, élection yi mel ni nag booy dañ ci jëlee déception bu metti looloo waral ñu wàcc fii tey ci tali bi di ko taal ñu leen di fàttali rek ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy Thiès voilà comme ni ngeen koy gisee ci image yi rek noonu la mbir mi demee voilà xanaa ñu bàyyi leen nag ngeen euh, seetaan. comme ni ngeen ko gisee ci image yi rek euh, mu nekk image yu doy waar parce que gis ngeen euh, ñi nga xamante ne moom mooy waay takk der yi di fay li nga xamante ne moom mooy tàkk-tàkk yi vraiment pour débrasser li nga xamante ne moom mooy pneu yu nekk ci kaw tali pour oto yi mën a demalaat seen dem ak dikk. voilà mu nekk nag euh, mbir mu doy waar. parce que boo xoolee ñoom bu ñu taalee fenn rek ba police yi dem fi nga xamante ne la ñu taal pour jéem ma fay taal boobu rek dañuy demaat beneen point taal ko. voilà comme ni ngeen koy gisee ci image yi rek euh, li nga xamante ne tey jii moo xew Thiès muy ginnaaw bu ñu reporté li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle yi démb ki nga xamante ne euh, mooy njiitu réew mi Macky génn def déclaration ni dañuy ajandi li nga xamante ne moom mooy élection yi pour defaat ay vérification ci ginnaaw loolu nag xam naa booy si lañu mer génn parce que démb sax ñi ngi doon jot ay information que li ni Mbàkke ak yeneen i secteur jot nañu fa yëngal tey nag moom mu nekk lu bett ñëpp parce que Thiès moom bu yi mësaan na am sax daan daanoo leen si dégg Thiès c'est nga dégg ay manifestation lu dul étudiants yi c'est nga dégg ay manifestation politique ba ñu taal tey nag moom mu bett ñëpp ñu toog ba quinze heures rek jeunes yi yëpp génnandoo ci mbedd bi rek commencé taal di def li nga xamante ne di wax li nga xamante ne moom mooy seen seen li leen métti ci réew mi mu nekk mbir mu doy waar nag à travers euh, les images fii ci euh, plateforme yi ñu leen di joxe information mu nekk nag euh, lu doy waar loo xamante ne bett na lépp voilà comme ni ngeen koy gisee rek ci image yi policiers yi ñu ngi nii di jéem a fay li nga xamante ne moom mooy taal bi pour oto mën a demaat euh, jëlaat seen yoon comme comme comme niñ ko daan defee rek voilà gis ngeen nii gis ngeen mais à chaque fois daal bu policier ñëwee benn zone rek dañuy seetlu booy dañuy demaat taal feneen le temps police di ñëw foofu ñu demaat tamit taalaat feneen mu nekk benn stratégie de combat boo xamante ne xaw nañ doy waar loolu te néew na ñu koy faral di gis parce que ñoom dañu génn en bloc ba pare tas def ay secteur voilà ñu ngi nii ñu ngi fii ci Thiès Mbour voilà comme niñ leen koy wane nii ci image yi en temps réel